mat na fukki at gannaaw bi président de la république Macky Sall amal pose première pierre université bu Sénégal oriental ci atum 2013 askanu Tambacounda di xaarandi réalisation boobu de xaar bi yàgg lool ba tax na ñu génn di fàttali nguur gi. université bu Sénégal oriental bu Tambacounda lañ doon ñaan au moins les autorités parce que buñ ko commencé ak léegi euh, di ko wax ak léegi yàgg na. donc mu nekk nag un plaidoyer bi nga xamante ne dañ koy ñaan bépp euh, autorité bi nga xamante ne muy ci région bi walla au niveau national surtout le ministre de l'éducation national actuel ki nga xamante carrément mooy Cheikh Omar Anne ñu jàppale ñu ci ak le ministre de l'éducation de euh, supérieur pour ñu taxaw ci pour université bi am parce que euh, nos enfants souffrent à Dakar et dans les autres universités bu ñu fa ñëwee ils sont ils sont là-bas dans des conditions fay nekk ci ay conditions yu métti donc ñun aussi yi fii nga war a gérer charge yooyu foofu day ñooñu jàppoon ne aussi même dans le domaine de l'éducation tey boo xoolee nous avons pas mal d'enseignants aujourd'hui kii demande des affectations pour au moins aller se former dans les autres universités donc si Tambacounda aujourd'hui avec cette université au moins mënoon na indi ñi nga xamante ni carrément enseignants yi ñu des fi ñi nga xamante ne mën nañ fi des au moins pour yokk seen xam-xam ci ay domaines yi nga xamante ne carrément mën na fi nekk mais malheureusement lu ñu seetlu mooy tey boo xoolee Tambacounda après les compétitions au national enseignants yu si gën a bëri dañuy euh, euh, migrer au moins dem lace affectation ci ay Dakar wala cees pour dem jànge ji mais ñu jàppoon ne tey bu Tamba amul université du Sénégal oriental mun na tax au moins yeneen enseignants yu si gën a bëri ñu des au moins dans la région pour au moins accompagner xale yi mais malheureusement c'est pas ce qui se passe donc aussi suñu doom yi en général képp ku fi am bac yow papa bi ji yaa ngi sakk yaa ngi xool naka ngay def tey ba am ay moyens pour au moins accompagner xale boobu mais tey xale bu nekkee bu nekkee sa nga xamante ne sa wet la yeewoo dem di jàngi foofu aussi ñu loolu dañu nekk di leen carrément carrément ñun lu ñu bëgg la donc moo la tey ñuy ñaan autorité au niveau du Sénégal nañu jàppale Tambacounda pour que l'université du Sénégal oriental ça soit ba benn li nga réalité lay doon si Tambacounda donc loolu la ñuy ñaan wax dëgg yàlla ñun nañ ci taaw yéen waa Leral tey ngeen def déplacement ñëw ba Tambacounda ñuy ñaan tey ñu porter plaidoyer boobu pour au moins Tambacounda mun ko am installation université Tamba dafa nekk léegi benn demande social demande sociale euh, boo xam ne ñu ngi ko mën a articuler autour d'une préoccupation d'abord mooy lan euh, je crois que tey Sénégal war na dépasser stade boo xam ne nit ñi dañu am bac fii jóge fii dem ba saint pour jànge fa foofu amuñu fa mbokk amuñu fa euh, vraiment xamuñu fa xale yu xam ne a très bas âge ñu jóge fii coupé carrément du cordon ombilical de la familiale dafay xaw a métti donc aujourd'hui je pense que je pense que euh, université Tamba boo xam ne yàgg nañ ko wax te études yi ñu koy euh, étude de réalisation yi pratiquement pare na war nañ ko waroon nañ ko réaliser bu yàgg waaye man sama préoccupation bu gën a en tout cas préoccupation bu bu ma am euh, surtout si loo xam ne man ci laa liggéey mooy entrepreneuriat des jeunes parce que que euh, ce qu'on développé aujourd'hui à Tamba, dans les villes en tout cas périphériques, c'est l'enseignement technique et la formation professionnelle. Il bu fi nekk lycée xam ne chaque année, il def ay des résultats baax Ren, les résultats, euh, nous on considère que c'est pratiquement 76% de réussite au bac, au bac euh, euh, comptable, hein, gestion. Mais aussi, le problème que nous avons au niveau de de de de de ce lycée c'est que locaux yi locaux yi fu ñu nekk dañ leen ko abal ah CM Modiba moo leen ko abal euh, locaux yoo xam ne baaxul dafa exigu te aussi dafa salte alors que lycée bi defaroon nañ ko bu yàgg boo xam ne benn affaire bu ndaw moo tax euh, ñu war ko inauguré ba léegi depuis des années et des années ba léegi kenn demu fa parce que euh, enseignement technique bi day renforcer. l'employabilité des jeunes employabilité ñëpp xam nañ ne loolu mooy permettre jeune mu trouver un emploi ou bien bu amee emploi naka lay def bi des ci emploi bi ou bien bu progresser ci emploi bi donc je crois que euh, enseignement technique war nañ ko war nañ war nañ ko dooleel bu baax Sénégal Sénégal ci instant bi parce que ñu ngi dem ci ère boo xam ne euh, l'entrepreneuriat moo war a jouer un rôle très important dans la résolution de la lancinante question de l'emploi des jeunes Et pour cela, pour qu'un jeune puisse avoir un emploi ou bien rester dans un emploi, il faut avoir un métier. pour nga am métier il faut nga am faire formation te lycée bu mel nii man gis naa ay filières yu bëri ñu ngi koy ñu ko fay def génie civil génie mécanique war nañ ko développer ah euh, de sorte que xale bu am defem ou bien bu am bac mu mun a euh, am le choix ah de s'orienter vers ces lycées là donc à la même la même manière que l'université de Tamba Je crois que la réalisation du lycée de Tamba, l'ouverture du lycée de Tamba est devenue une demande sociale. Pour ce qui concerne l'université, je crois que c'est vraiment le plaidoyer qu'on euh, <laughs> porter au niveau des, des, des, en tout cas des voies autorisées pour que nous réalisions une bonne fois pour tous. L'université, nous presque maintenant, ça fait 10 ans ou même plus. Voilà, 2013, là, je crois. Euh, Jusqu'à présent, les états des travaux, travaux, travaux nu mu demee dafa yéex parce que gisaguñu bâtiment gisaguñ dara dañoo gis rek benn miir lañ fa defaragum te loolu nag ñu ngi ñaax autorités yi gars yi voilà ñu tabax université bi parce que doomu Tamba yi nag dañoo sonn de moo wax la parce que université dafa métti boo demee Ndaka Dakar wala kii nu mu tudd Ndar Bambey Ziguinchor problème bu gën a mag bi mooy problème logement étudiants yi bu ñu fa demee. pour ñu am fu ñuy loger dem jàngi dans de condition conditions looluy doon seen problème même bu dee ah, ah, sur le plan pédagogique tout est là-bas mais sur le plan social ça c'est un autre problème looluy sonal étudiants yi te socialement étudiant bu nekkul rek du mën a jàng normalement léegi nag ñun fii Tamba surtout Tamba côté oriental bi mun naa wax zone orientale bi bu ma nee Tamba Kédougou ci la bokk voilà du genre ñooñu soxla nañ seen doom yi ñoom tamit ñoom am université Tamba am université ci boppam parce que réew mi moom université yi bu yokkee rek loolu atul ci réew mi donc day noppal ñenn ñi kooku ñu ngi ñaan vraiment autorités yi ñu gën a taxawaat ci projet bi ñu gaaw ko agli bu baax parce que euh, ñun tamit soxla nañ université soxla nañ suñu doom yi suñu rakk yi voilà ñu ñu jàngee fii nii sonu ñu ci déplacement yu bëri ñoom waa Tambacounda di sakku ñu àggale leen seen université laata 2024 ndax wàllum logement danay faral di yàq seen njàngum doom ñi ci yeneen université yu ci mel ni Ndakaaru Thiès Bambey Saint-Louis ak Ziguinchor. au niveau de bambay comme euh, au niveau de Saint-Louis ak euh, tant d' autres universités étudiants yi la ñuy gën a rencontrer mooy problème logement problème logement ça devient quelque chose boo xam ne c' est boo xool sax Bambey dem na ba benn chambre dina yegg cinquante mille donc loolu ce sont des charges yoo xam ne étudiant du ko mën a supporter euh, pour loolu nag problème boobu ñu mun ko régler ici à Tamba on a de l'espace c'est la volonté qui manque donc gis nañ état bi def na fi euh, en place benn université euh, dénommée université du Sénégal oriental boo xam ne mun na polariser zone Kédougou mun na polariser zone Bakel que loolu yëpp mun na alléger problème logement étudiants yi di rencontrer dans les universités récemment conseil ministre bu ñuy décentralisé gis nañ ñu changé coordinateur de projet comme man dama jàpp ne loolu du régler la solution il faut avoir plus de pragmatisme dans les projets dans les politiques de développement notamment ce qui concerne l'enseignement supérieur parce que étudiants yu bëri ñoo ngi souffert am na ñu bëri sax j'ai renconter des étudiants yoo xam ne si ay couloir la ñuy fanaan que loolu sur leur euh, sur leur enseignement da ngay gis étudiants yoo xam ne dañuy cartouché à cause de ça parce que boo nekkee yenn yenn yenn situation yu précaire yoo xam ne sa parent mënu la jël en charge di la fayal à chaque fin du mois location plus de cinquante mille wala voire euh, une intervalle de cinquante mille en tout cas loolu day nekk loo xam ne day nekk euh, quelque chose qui est qui sera une problématique pour les étudiants donc ñun lan la ñuy sàkk actuellement suñu autorités yi mooy suñu université bii di université di Sénégal oriental ñu jéem ko rétablir jëm ñu defal une université de qualité boo xam ne suñu doom yi duñ ëllëg bu ñu génnee dem yeneen université yi problème yi ñu fay rencontrer mun nañ ko bañ am parce que au niveau de Tamba Tamba ku ne Tamba xam ne Tamba c'est une zone qui sociable fii ku nekk boo dem kër goo kër goo dem am nga fa mbokk donc euh, doom Tamba bu nekkee si biir université di jàng yaakaar naa ni il sera plus à l'aise que d'autres bu nekkee beneen université sept régions yi Sénégal amoon jamonoy Senghor Tambacounda ci la bokkoon les sept bassins di pays le Sénégal oriental ci la bokkoon donc les six yëpp am nañu université léegi nag ñu bëgg a tëb septième bi pour defalal région yoo xam ne parce que démb juddu ñu bëgg a def fa université foofu tëb région bu mel ni Tambacounda ki est à quatre cent et quelques kilomètres de Dakar suñu doom yi ku ci am bac sa fit bi rëf lay def parce que conditions yi sa doom nar a dëkkee fële xamoo ko doo ko maîtriser ils sont laissés à eux dañuy dem nekk seen responsable bopp nekku ñoo papa nekku ñoo yaay xamoo ku leen di yar xamoo nu ñuy dëkkee xamoo fu ñuy tëdd xamoo ci lu ñu ne xam nga daal sa doom jàngi na donc bu ñu mënoon am université fii suñuy def nañ mur bi depuis banaat mur dong la ñu defal dem maa ngi dégg ay régions yu judd barke dem bu ñu naan dañ fay def université les sept régions du Sénégal six yëpp yoo yoo amoon après les indépendances sept régions yi amoon ci Sénégal six yëpp am nañ université septième bi lu tax duñ ko ko jox te mu étendue bi di dem fi ba Bakel moo war a yóbbaale Kédougou ah mën a yobbale ay Vélingara département yi yëpp mën nañ fee jàpp ba Koumpentoum ñu ñëpp suñu doom yi nga am sa doom à cent kilomètres de toi waa deux cent moo gën ay quatre cent et quelques bu ñu demee le conditions de vie à Dakar sont chères léegi la plupart les cinquante pour cent des étudiants qui quittent ici mais euh, collectivités yi ñoo leen di luweel wala ku nekk ku ci sa waajur yi am les garson ou fii filles se par quatre di luwe ay néeg ci ay xale yu ndaw yu am vingt ans vingt et un ans ñu nekk ci ay néeg ñoom kese ah nekkuñu ñëw waajur nekkuñu ak kenn kooku vraiment dafa mun nañu jural leneen lu dul jàng dañoo ñaan président de la république Macky Sall balaa moo beneen région dafa ne woon bu Sine Saalum bu pare tambala donc Sine Saalum pare na nañ defal Tamba suñu université Sénégal man de loolu lay ñaan président de la république balaa moo jeexal mandam na lancer les travaux de notre université dinañ xam ne gàcce ngaalama il a tout fait il a beaucoup fait mais comme àddina décidé na nii dafay dem balaa moo dem vraiment waa Tambacounda la grande le, le, le Sénégal oriental dans son entièreté ñu ngi koy ñaan na lancé suñu université bi balaa moo dem loolu c'est le cri de cœur que j'avais am na école supérieure yu fi nekk de formation supérieure yu fi nekk ñoo xam ne c'est les écoles aussi de de formation technique ah yu fi nekk euh, mais ba léegi c'est encore timide c'est encore timide parce que y a y des questions de moyens hein am na école yi fi nekk yoo xam ne dañuy def information mais pas à un niveau élevé donc c'est un niveau intermédiaire hein donc euh, je pense que côté boobu en tout cas un lycée technique beaucoup plus adapté aux besoins de Tamba et une université devrait peut-être euh, être un pas supplémentaire dans la résolution du problème. Il y a eu des marches yi nga xam ne carrément am na fi. ñu def ay même mémorandum bind ay ay ay ay kii ñëw remettre ko niveau en fait de la de la gouvernance gis gouverneur jox ko mais aussi y a eu aussi ay rencontres yu carrément am na pour au moins gars yi taxaw ji mais malheureusement amul ba léegi miir bu ñu fa tabaxoon miir boobu clôture bi ba léegi moo fa am donc ñu xaar au moins que loolu que ça soit une réalité pour à Tambacounda ñu xam ne carrément université bi wax dëgg yàlla du ñuy génn 2023 bi wala 2024 fekk amuñu ça soit quelque chose de réel à à Tambacounda